Euh, di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne rek yéen a ngi si émission bu mag bi nga xam ne mooy émission Sikar si ak màgget bu borom daaru di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi waaye nag di jiital si nuyoo bi xalif général kulli murid Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér di ñaan suñu borom yàggal ko suñu kanam ba lépp li nga xam ne fas yéene ko liggéey Touba mu liggéey ko si barke Seexul Xadim mu ànd kook jullit yeeg mbokk taaliba yépp waaye tamit di nuyu a baax Serigne Abdou Karim Mbacké di ziyaara Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni na mu yem kooku mooy kan mooy suñu wasila baabu laaxi baabu jënnati maam borom daara ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax yal na suñu borom wéeral cëram bi yëpp hmm, mu yàgg suñu kanam moom it yàgg ñoo jiite mu neex ba faaw ñoo ngi koy bégee bu baax a baax ñaanal ñi nga xam ne ñoom la caabi féetee ginnaaw ak ñi tëdd selaal hôpitaux yi mbokk yi di leen wax ne tey ñoo ngi fi nga xamante ne nii mooy Dalifort ñu seet si fi xale bi nga xam ne nii wax dëgg yàlla mi ngi béy waaram si li nga xam ne nii mooy wàllum sikorolaa bi ñu gën ko xamee si Assane Ndiaye ah ñu fekk ko fi nga xam ne nii mooy basam mooy goxam fas yéene waxtaan ak moom si li nga xamante ne ni moy mooy la si li nga xam ni moy bes buñu dem de la 17 juin koko organiser ko di promoteur mag bobu di euh, euh, Noreyni bu fas ah donc Assane ma ngi lay nuyu di la ziaré di la baye nga nuyu mbok yi ray seetaan ci Sen Smart TV. Hmm. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Hmm. di ñaanal suñu Mountakha Mbacké yalla na fi yag lool te ak di ñaanal suñu wasila ci yoonu mourid borom daaru Noreyni di ko ñaanal. mu yàgg fi lool ndax su fi yàggee loolu mooy suñu njëriñ su jugee ci loolu di ziyaar sama waajur bu góor di ñaanal sama waajur bu jigéen yàlla na ko borom bi xaare àjjana amiin amiin amiin di ziyaar mbokk taalibe yëpp di leen jox seen wàccuwaay di nuy sama waa famille di ñaana ñaanal yàlla ñëpp am jàmm daal ci barke si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul amin alors si barke Cheikh ba Bamba Xaadimu Rasul donc Assane Gningue man man li ma bëgg mooy euh, euh, balaa ñoo ñoo ñoo tàmbalee waxtaan bi dama bëgg yow ku ku la xam xam na zikarkat nga hmm. ah te am na loo xam ne nii moo ngi suñu kanam muy bés boobu ñu jëm donc tey ah, lan la ñu mën a xaar Assane ah, si bés bi si wàllum zikarulaa bu muy bu muy dem def foofu noonu mais dama bëgg balaa loolu nga nga nga may ma zikarulaa bu neex may naa la 15 minutes nga sikar ko après ñu dugg si bës bi hmm, ñu waxtaane ko bu soobee yàlla acca tàmbalal. Nurayni laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah sallallahu taala yàlla yaa moom sa jaam alayhi wa تعالى عليه وسلم يلا يرم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى يلا يرم الزجام عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم naamal daaro ragala ci mbaay kara mbàkke yaa nu moo fi nu ne ak diwaan bani mujjeen aa daaro mbàkke feenuna bilaay naamal ndar rak la ci baay karam Mbàkke yaan moom fi nu ne ak diwaan ba ni mu jeex mam Cerno Faati Baabulaa namandaro daaro raka la ci baay gara Mbàkke moonu moom fi nu ne ak diwaan ba ni mu jeex maam Cerno seet na muy doxee babula na muy waxee daaroog maam Cerno Noore ni yaanu fee nu ne yàlla ndaamal daaro ndaamal daaro ndaamal daaro ci baay kara Mbàkke yaanu mo feenu na diwaan ba ni mu jeex Mbàkke mooy sàkku taalibe mooy sàkku gisee na muy doxee ak na muy waxee looloy taalibe nongo roy ci borom daaro babula na muy waxee mboy saku taalibe way sàkku taalibe seen na muy doxe ak na muy waxe loolay taalibe nongo roy ci borom daaro dundal basay may di baawa babula bilay dundal bilay borom daaru dundal namal daaru dundal dundala dundala dundale ba say may di baawaan waaw waaw waaw waaw babula dundal jërëjëf xini xitaaba xulela xitaaba wax bala ma daaba yaa sax siraaye borom daaru dundal dundal baabulaay dundal bilaay naa la jalaala naa la jama naa la jalaala naa la jalaala wax leen naa la jalaala naa la jama wax leen naa la jalalaan mi mën na taala rabi samaaye jalaala waaw waaw jamaala wa wa wa innaka la'ala khuluqin asim jalala jamala bilay antal karima anal benn sëñ antal karima anal dagrana ulimo fika sanaye jalaala borom Tuuba bilaay Fallu Kamal la fa loxo ca kaw Fallu Kamal la loxo ca kaw Fallu Kamal la lu néew la yomb ci rijala la ilaha illallah la ilaha illallah loxo ca kaw daaru noorey ne lii lee bu jërëjëf loxo ca kaw kuy sa baay noo rey ne nu neex daal ngay doxee jërëjëf Assane Assane jërëjëf nañu wàccee waxtaan jërëjëf Ah, dégg ngeen li nga xamante ne nii moom la xale Dalifort bi daal di def mu nekk lu am solo mbokk yi ah Assane ñoo ngi lay ñoo ngi lay kontaane di ñaan suñu borom wéral baat bi donc dañuy dañuy dañuy jublu direct si li nga xam ne nii mooy waxtaan bi Assane balaa ñoo jublu nag si mbir mbiri ah, tey su ma la doon laaj kan mooy Assane kan mooy Assane Ndiaye Assane Ndiaye fan la sokkee koo ah bëgg nañu xam loolu yëpp waaye si tënk rek. Assane Ndiaye mun naa ne maanaam taal bi suñ tubaab bu xeebu juddoo fi ñuy wax Sicap Liberté 5 jóge fa ñëw maris bi mu ñëwee maris maanaam fekk fa ay mbokk taalibe dëgg la ñoo xam ne samay magum taalibe lañ ñu commencé di fréquenté dugg Dalifort bi nga xam ne dëkk Baye Fall la dëgg la ñu fekk fa suñu ay magum taalibe ñu melni seigne sëñ Saliou Ndaw. Mhm. ndeysaan. defe naa 2006 la ko njëkk gis mu sikar 2006. 2006 bu ma ngi nek xalé ñew ma sax jéggi ma leen gis ñuy sikar né rek. waaw. ñew ma sax jéggi mu xol leen. ñu commencé di naf nafi ci daayira yi digënté Maris ak Dalifor. Mhm. di naf nafi. deug la mom tammi su ñëwee. mu def ñu manam rakam su ñëwee yaatal ñu. Mhm. en tant que xalé des fois ñu joom mu a kat di ngeen sikaré ni baaxul nangam ak nangam. noonu daal la demee. ndeysaan noonu la ah. demee mbokk yi Assane yaa ngi si ñaata single Assane Ndiaye mi ngi si ñaata clip. Mhm. asan Ndiaye yaa ngi si ñaata album. ñu mhm. bëgg nga expliquer mbokk yi nga xam ne ñooy ñooy safoo seen simaat. Mhm. loolu loolu yëpp ñaata nga si defagum Assane Ndiaye. waaw mun naa wax def naa benn single ak sama benn mbokk taalibe. di ko nuyu au passage ñuy wax Bamba Touré. boobu maanaam. duyoo la woon. def nañ ko benn benn single. Mm-hmm. beneen bi maa ngi studio di waajal benn son borom daaru. Mm-hmm. ragal suñ jugee si événement bi rek. Mm-hmm. dañ ko jébal mbokk taalibe yi daal. ndeysaan su ko defee muy incha allah ñaari single. ndeysaan ah. muy ñaari single ah, mbokk yi ba tey rek ñoo ngi leen di fàttali ne yéen a ngi si émission bu mag bi nga xam ne mooy émission Sikar si ak Maguette bu borom daaru ñu ñëw seet si ki nga xam ne mooy Assane Ndiaye ñu fekk ko goxam ah, fi nga xam ne nii mooy Dalifor gis ngeen lu am solo li nga xamante ne nii moom la def léegi léegi léegi nii alors Assane ñu ñëw si bis bi. Noreyni nekk promoteur. daal di organiser bés bu rëy euh, si li nga xam ne nii mooy fa lañ jëm di guddi borom daaru ñu ñu ñu invité la si yow en tant que sikarkat te boo xoolee sikarkat yi maanaam bëri nañ si dëkk bi waaye ñu tànn la si yow ban yëg-yëg nga am Assane Ndiaye lal la yëg ba ko nooree nii ooyee pour mu participer si bés bi. waaw loolu moom maanaam dañ ciy kontaan. dañ ciy kontaan. di xam tamit lu tax mu boole ñu ci maanaam bés bi du hasard parce que dañoo bokk pas-pas. bokk man ak moom fi ñuy liggéeyee borom daaru. man moom ñoo bokk même daara. dëgg la ñoo bokk même daara. Mhm. maanaam dañ ci am maanaam contentement rek. Mhm. te xam ne tamit di ko wax jërëjëf mais li mu def rek la war a def. parce que ñoo bokk maanaam fi ñuy bayandoo sëñ bi. dëgg la waaw noonu la demee daal. mais mais lan lañ mën a xaar Assane jour si lu ñu mën a xaar Assane yan surprise nga ñu nar a indil ak yan façon xeetu sikar nga ñu nar a sikaral si bis bi parce que bëri na soppe yoo xamante ne nii ñi ngi xaar Assane si bés bi am na ñoo xam ne Assane moo leen indi si bés bi am na ñoo xam ne Magu Karaam moo leen si bés bi am ñoo ne yeneen sikar ki ñoo leen indi si bés bi mm-hmm. mais tey yow lan ngay waajal sa lan ngay waajalal ñi nga xam ne nii mooy soppe Assane si biir déjà commencé nañ si liggéey mm-hmm. déjà commencé nañ si liggéey parce que opportunité la gën nit ñi dañu doon soññ bu baax da ngeen di war di génn nit ñi di leen xam. parce talent mi ngi fi nangam nangam. far yàlla def. ñu am concert bu ñu war a yëngu soraan mu nga xam ñëpp fay daje. dëgg la ñëpp fay daje. Mm-hmm. nga war a mën a ñëw wane sa bopp. Mm-hmm. comme ñi maanaam ñu ngi bokk di ko waajal ak suñu ay magum taali bi ñëpp dèjà commencé nañ si liggéey. dëgg la. di wax daal mbokk taale bi maanaam ñu waajal ko fi ñuy xaar incha allah dinañ ñu fa fekk bu baax baax si côté Zikroullah bi. Mm-hmm. ak li nga xamante ne ni moom moom nga waxante euh, ki nga xam ne ni mooy promoteur bi. Mhm. Euh, euh, naka naka ngeen di toogee di waxtaan est-ce que est-ce que promoteur bi mi ngi ñëw di leen seet si si bis bi ni muy demee. Mhm. ah wàllum blog yi wàllum ticket yi bëgg nañu daal nga expliquer ñu loolu détail par détail si tënk rek mu gaaw. waaw soo xoolee man ak moom presque chaque jour. Mhm. dañuy déggante. dëgg la. man moom chaque jour dañuy déggante. soo xoolee sax mun naa ne moom sama féete la. d'accord sama yeneen mbokk sékkat yi ñoo ci nekk mais loolu day am. dangay am koo xam ne maanaam sa xarit la. moom dañ ciy déggoo chaque jour. Hmm. du du question la dara am na yenn mbokk taalibe yu yu bokk si bis bi man maa ko proposé ne ko jëlal ñooñu. ndeysaan. jarul lim tur mais am na ñoo xam man maa ko proposé. ne ko yaa xelal pour mu jël yeneen. jël ñooñu waaw maa ko xelal ne ko jëlal kii jëlal kii. ndeysaan man maa ko proposé loolu. dëgg la. su côté mobilisation bi. ñu woo mbokk taal bi yëpp. ndeysaan. da nga lok kameraman bi sama kameraman kamu nga lancer message bobu non hmm, ngir sopay yi mën a ñëw la ci bis bi manam di wo mbok tal bi yeb ndim ay xalé lañ waye nix mën nañ fu nek hmm. fu nekk wo nañu fa ñu dem waye nak ñu ñoo xewle hmm. di wo ñepp fi nga fa la déparer maris bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn suma ma bay fall ba mën tekki dara bo kenen di manam di ma gis li ma bëgg sax loolu fofu la déparer dëgg la comme di leen si woo di wax seen doom seen xarit moo xewle. Mm. su ma jógee ci loolu teg si waa Dalifort. Mm. fii moom ku ne xam na ni maanaam mun naa wax aw ma ay soppe wala dara. Mm. fii. fii dama fi am ñoo xam ne man ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay. dëgg la man ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay. dëgg am ñoo xam ne dañ may tooñ. di ma wax surtout man man su ma fekkee ni ay xale yu ndaw laay àndal. ay xale yu kam jëlal xale yi wane na ko. parce que maanaam du loo leen di jox wala nangam nangam da ngay gis nit rek bëgg ko man daf ma dal. ci waa for ñoo xam ne dañ may bëggee bu baax a baax baax di leen ci woo. bu baax a baax. di woo autorités yi nekk ci dëkk bi. di leen wax ñu jàppale ñu. jamono dafa métti. Mm. te dëkk bi presque jeunes yëpp Baye Fall la ñuy dund. ñu dimbali ñu. dëgg la maanaam yombalal ñu affaire yi mu gën ci mën a jàpp pour moktaal bi yëpp bëgg dem kenn du fi des incha allahu rabi. maanaam ñu jàpp si bi jàpp si bulak yi nga moom mais li ma la bëgg laaj mooy est ce que est ce que monsieur le maire bu Dalifort dem mbir yi mu xaw a jàppale ak yooyu. déedéet maanaam loolu commencé guñ ko parce que dafa am lu ñu doon xaar. Hmm. mais maanaam du yàgg si semaine bi rek. Hmm. dañ def délégation bi seeti ku ñu war a seeti pour mu jàpp si. si hmm. diggante parce que man ñaari ñaari commune ñoo ma seex Maris ak Dalifort. Hmm. man ñaari localité yooyu laa dëkk. dëgg la. kenn mënu ma fa génn Dalifort bi kenn mënu ma fa génne Maris kenn mënu fa génne. dëgg la. dinañ def li ñu war a def maanaam képp ku ñu war a dem seeti rek. dinañ la seeti nga jàppale ñu. Hmm. ngir sëñ Tuubaa rek tax. Hmm. waaw. alors mbokk yi noonu la demee da ngeen Assane Ndiaye ah Zikrola kàddu yi nga xamante ne nii yëkkati na ko donc émission bi nag wax dëgg yàlla ah, dafa nekk émission boo xam ne nii du comme sama yeneen émission bi bii dañoo ñëw uniquement pour ah, li nga xamante ne nii mooy mooy mooy bés bi. Mhm. alors Assane dama lay bàyyi rek nga nga nga tàggatoo après bu ko defee nga tëj ak erreur erreur mbaa bu neex nag laa bu nga mhm. tëjee. Mhm. Hmm? gërëmal ñi nga war a gërëm ñëpp benn yoon. après bu ko defee gars yi bi maanaam. di gërëm waa kafe gi si ëxlu bi moo ko defee sama ay magum taalibe su ma ko tegee si loxo papa laay rek. ak mhm. el dinañ ko jàll ci mbokk taalibe yëpp. Mhm. ak sama kii moom sama rakk la. Mhm. sama rakk la yu li sama magum taalibe la Biram. Biram waaw ñu ngi koy nuyu. Moustapha Lazo ak Aliou tamit sama jëwriñ. Aliou Xaadim Xaadim. su ma jógee ci loolu damay sant sama waa famille. parce que Baye Fall maanaam dafa nekk loo xam ne yombul. am ñoo xam ne soo si duggee rek dañuy yaakaar ne maanaam yàqu ma dëgg la. parce que société bi mooy mooy doxee noonu sama sama waajur bu góor sonalu ma ci dara. Mhm. ci affaire de Baye Fall. Mhm. mooy bàyyi ma dund ko librement. ndeysaan. tey su ko bañoon tey du ma maanaam dinaa dund sëriñ bi nag waaye nag dinaa dox si ay ndigalam. dëgg la mais moom daf ma ko yombal di ko ñaanal mu yàgg fi lool. lool lool lool lool lool amiin amiin amiin amiin amiin sama waa famille ñëpp sama rakk bu jigéen mhm. samay mag ñëpp di leen di leen ñaanal di gërëm tamit sama magu yaay xam ne te yaay dafa for sama yaay newatu fi. Mm-hmm. waaye moom mënumaa sax xool si bët ndax. ndeysaan daf may ñeental. dëgg la man sama fekkee sama kër day mel ni xale bu comme comme xale yi. Mm-hmm. lekk nga li nga sol dafa tilim nangam nangam. dëgg la aw fayam di ko ñaanal maanaam mu yag fi lol lol lol amen amen amen amen amen amen tamit di ñaanal borom daaru mu yag fi lol lol lol lol amen di ñaanal borom daaru mu yag fi lol amen ndax su fi yag du sama njëriñ rek waaye njëriñ bokk taalibe yëpp askan bi yëpp njëriñu askan bi yëpp xam nga doguma la borom daaru nak euh, dafa nek manam euh, sang bi nga xam ni nii du du mbokk taalibe ko bëgg de hmm. Sénégal ñoko bëgg hmm. tidiane ñoñu gëna bëgg sëriñ bi hmm. xaadar ñoñu ko gëna bëgg ñasseli ñoñu ko gëna bëgg kon nag borom daaru borom daaru ñëpp la ah kam ñoo ngi leen di béggee di leen jaajafal ah di di leen wax ne maa ngi gërëm sama man dadi ah ak kamu kamu nag sama seex la moom wax dëgg yàlla di nuyu soxna yeeg di nuyu ñëpp hmm? ak màgget bu borom daaru toujours plus jamais moins leen di ñaanal bu baax émission bi jëm ba ci kanam ba fi ñuy dégg yeneen télé yeeg yëpp njëkk képp kuy suivre chaîne bi rek ñu ngi lay nuyu te di nuyu sama mbokk taalibe yëpp. ndax ñun daanaka chaque jour yi ngi ci cant yi fi ñuy doy ak yéen bëri na mën naa ne bis bu ñu dem rek dana leen fay fekk ngeen fay liggéey liggéey ba am solo am solo kon nag mbokki taalibe yi la ci ñepp japp rek ñu xamne sen bi mom moy sunu sen ñun ñi nga xamne ci si ni ñooy bàyyi daaru yi wa salaamu alaykum <laughs> wa ñu kan ñu ngi leen di jaajëfal waaw di ñaan bay Fall sen smart mom ñu ngi ni daal ñu ngi sunu biir man Sourou faal ma ngi ci yeen ba geej gi fer xamne image day dem ha te sen bi li la bëgg ñu évoluer di dem waaw parce que gars yi abonné bay te yalla tax dara ma dara ku bëgg degg lu neex ma nga bëgg a gis lu neex ma nga bëgg tatan lu neex abonné press ku wàllu yaañ da nga tëggul te lii ëttu nóoree ni la kon lii bàyyi daara yi ñun moom kon nanu jël lu nu moom teel ko sunu bopp na gaa yëpp abonné yaa ma gën màgget bu borom daaru ca kaw ca kanam dund ayca Sen Smart TV sunu yëf jëf